ndax yitte nekk moom nekkoon na ko mos lu bëri bëri mu daan sàkk si nit doo ko mën a jàng doo ko mën a jàng ndax moom daaw jàng kenn toujours dafa nekk ci service bi te ñu ko ñëw dana am solo trop ñu fàttali bu baax a baax yi ma am surtout nga xam ne ñu fi daje ay doomu daara dinaa def wax ni képp ku seet ak moom relation yi sincère yu dëgg ngay seet ak moom surtout nag si wàllu xam-xam xam-xam da ko jaraloon lu bare bare bare bare bare daawoo ko noppalu daawoo toog da ngay wax ñu daanaka dund na da nga naan daf ko daf ko doon da doon njëkkante waaw li ñu naan kaana yu saadix ak zaman fii taxqiq al baad ak ak tumoxaat ak ay mashruwaat yoo xam ne si ñu wax si boppam leen jël si moom ay leçons yu bëree bëri di nuyu bu baax a baax euh, sëñ Moustapha suñu mag di marsivise di ay soxnaam ñu ngi toog di nuyu ay wóoree di nuyu ay xaritam ñu ngi jaajëfal ñëpp di jéem tamit si si kàddu yi ndax dafa xaw a tey salaamaaleykum sànq ni ngeen ko waxee nii dara bu matee ba pare boo ca doolee la leen boo sàggee ko mën naa te Cheikh Youssouf huwa euh, ganiyun kon képp koo xamee ni si élève nga war a def bac ak yu demee noonu misaalu ñuy su koy loo nii misaalu nga doy la sëkk pour nga mën a roy ci moom ci sàkku xam ci góor continuer day sori ndax ci àdduna yi mën a waxee ci moom dafa bari moom ëpp biñ lijjantee ba àgg ca dernier virage ba nga xam ci pour ñu maye rek la def. daf ma. يعني شخصيتك ينبغي ان تكون حاضره شخصيتك ينبغي أن تكون حاضرة جوبلتي 14 عندي كده ولا people in the world. Sí. عاش عليه قبل وبنته لأن صلى الله عليه وسلم خفف حدث وقت تكون فيه للملك Thank you. boobu ba léegi mooy li ngeen li ngeen dund bàyyi moo tax bu ñu fi seere bu ñu fi jógee li ëpp solo mooy li Bachir wax nañ ko ñaanal mais Youssouf nit ku baax la bi mu demee fan yi di ziyaare yaayam mënu am na naan yaayam dañoo wax dawal laajee mu tontu wala nga tontu moom mën na laa baal mooy nit koo xamante ni si jàmm rek lay dox ay nit bu ñuy ànd yenn saa yi dañuy am réeroo dañuy am lépp mais chaque jour di ngeen si lu la xam loolu da ngeen koy seet te sax ñu dox di encouragé pour mu jari gis loolu loolu di ko gis ko man di ko boobu moo gën a nekk ci gis mooy nit ku bëgg nit ku avancé la nit ku bëgg nit ku baax la nit ku koo xamante ni fii lu mu am bokk na ko ñun yàlla na yàlla boobu yàlla voilà léegi nan dem ci fii rek ma incha allah jërëjëf jërëjëf kontaan nañ ci waa Algérie yal na yàlla fay